asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi dellu si waat nanu di leen nuyu fii nu leen baaxoo nuyoo jamono ju nekk ci waxtu bii jataay bii bu ngeen ko gisee jataay la boo xam ne jataay bu yàgg di am la ci jamono yi nu toll te moo di waajal première safar ni nu ko baaxoo defee ban jotee ndigal li ba léegi te mooy saa yu màggal ak Tuubaa di jublu si sëriñ bi dana joxe ndigal ñu setal dëkkub sëriñ Tuubaa bi balaa gani sëriñ Tuubaa yee ñëw ndigal loolu nag la sëriñ Muntaxa Mbàkke ya salaat na di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér jëmale ko ci sëriñ Basiiru Mbàkke mi nga xam ne moo jiite organisation màggal gi ndigal li wàcc ba ci sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdou Latif mii nga xam ne moo jiite comité boobu moom itam ni mu ko baaxoo defee saa jotee ndigal li dana ànd ak jawri jawri ñi mu ko baaxoo àndal woote liggéey bi tàllal murit yëpp loxo ak bokki julit yi nu waajal ndigal loolu te ko loolu moo waral jotaay bii tey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 ñu dimbale ko bu bis baa ñu fexe ba oto yi teel a ñëw te chauffeur itam ñu leen li leen sëñ ko ndax boobaa dana yombalal sëñ bi liggéey bi te sëñ bu liggéey bi yombee dana liggéey ci wa rahmatullahi taala wa barakatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw bu ñu santee yàlla julli ci yoon sant sëriñ Tuubaa di sant suñuy waajur noo ngi leen di sant bu baax baax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 ñu raafale marché bi yëpp bale ko ba mu set wecc waaye ngir yàlla ak jëmmi sëñ Touba maa ngi delluwaat xam naa wax ji jarul muy gudd ndax kenn ku ne da cee bëgg euh, sànni sa kàddu nanu bàyyi sunu nan bàyyiwaat xel ci xam ne nun noo war a noo war a jiite mbale mi nañu làmb poos yi dimbali sëñ bi ci gaasuwaal bi nañu tëj place yi ŋàbb bale yi ak rato yeeg yëpp dem ci terrain bi liggéey wax ji gudd gàtt lool dong la wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu